Pixel on the bed. léegi maa ngi liggéey di bale di root di foweere lu ne ma dugg ci et am naa ñaari doom bu góor ak bu jigéen mais amuluñ ma benn njëriñ wóor na rek ñu ngi seen léegi toog di nelaw waaye loolu tey dafay jeex ma dafay jeex laa wax ma ne Jotaa maa ngi. Ebo Ebutu. waaw. you no fit. tët tët tët tët. yow mais fii kenn nopp fi noppalu ko quoi te da ngay wax rek di wax rek. sama yaram sedd naa taay dafa bëri wax. déedéet duul mbedd fàcce ngeen naa damaa bëri wax. yaay yéen amulu leen benn njëriñ. muy yow muy kii benn njëriñ amulu leen ma ko man may xëy di sonn di dang-dangi may wax kii naan ma damaa bëri wax kii nag naan ma moom day nelaw yéen ku nekk yéen nan la def ba du bëri wax. waa léegi yaay lan nga bëgg ñu def. waaye yaay léegi wax ñu lan lañu war a def lan. Ah, yéen ñaañi yéen a may laaj lan ngeen war a def. ay lu mag yàlla xamu leen lu ngeen war a def man nii meer naan dinaa leen wax lan ngeen war a def. dégg leen ma ñëw dinaa la wax sama yaay nag temps yi daa day wax rek saa. soo yoon nekk ci daal seerale ko. yow nga ñàkk amoo benn joom waaye ñëw ñëw na ko ne moom. ñu jënd rek dara sottiwul. yaay daal sama xarit boobu asu coupé bi daal 400000 la ko may 400000 rek pour mu fête anniversaire la damaa bëgg mu jox ma 12000 ma dem ca sàmm soxor ciseau récupérer sama ñoom rek daal koy sañ sax ko yow dimbali ma gis nga sa xarit boobu astu dafa am fulla am fayda yow nag dangaa ñàkk fulla da nga fon ne man dinaa yëkkati sama 12000 di la ko jox. bon nga dee. ay yow maa ngi ci biir. sama yaay léegi loo wax rek mu ngi lijjanti lijjanti. am na ñoo dem ci sàmm soxal si ba xam na ma def sama ñaaw. laa ñëwoon jël si bàyyi. ah ñaw boobu de. waaw ñaw bi yàgg na bi de. su ngeen de. waaw waaw. ah moom ah. waaw ma jox ñaw boobu mooy li ñu wax fi nekk foofu noonu. waaw ñaar. ndax ñu ngi leen. alhamdulilah. tey ci jàmm bu baax. bu gaaw bu gaaw yéen ah. waaw yéen waaw waaw voilà foofu la waaw. waaw Samba ñu ne ñoom ñu lan la ci. dëgg la dëgg la. ah Samba li ma ñëwoon neex na de. Ah. waaw waaw. <laughs> waaye tey de. waaw ñoo fee jaar ñëw ñëw. Mm. ma am benn anniversaire bu ma dem anniversaire bu jàpp laa am. Mm-hmm. su ma ko jógee. ñu mm-hmm. mm-hmm. jox la sa xaalis. Mm. waaw. ah. loolu mënul nekk. ah lii de mënul nekk. waaw ah, waaw. loolu daal boo bëggee dégg dëgg. yow bi daal saa yaa am na ci am na ci bor yow am nga fi bor. Ah, waaw waaw man moo leen ko jox soxna si loolu moom moom wax dëgg yàlla moom mënul nekk moom. ah mënul nekk. déet ah yow da nga fi amee bor bi amee ci bor. ah, ah waaw waaw man moo leen ko jox daal. ma jox la yëri No, non loolu mënul nekk non non non non loolu No, no, no, no, nekk ah man dañ rek dañu xool rek ah sama mënul ma maa def liggéey bi rek nag su ma ñëwee da nga sa xaalis non non No, no, nekk xool rek yow sama am nga melokaan de ah samba ba nag yow sama ñoom ma ne doo ma ko jox waaye maa ko def su ma demoon ci yeneen téere lii yëpp du ma dal loolu naa fi tëyal la dax waaye xam naa bu baax fi may dem ak yow. waa mais kii di may booy Ibou Cuuj Grand Tix mais lu mu demee noonu naxam lépp jàmm. daaju nii. Ah, gis nga de grand mère maa sonal dama sonal grand saa ma xëy rek daf may teg soog ay demooti liggéey demooti liggéey te grand bi yow xam nga yow job am si town bi i nekk te man xalaatuma yëg ci gaal yi sama rak xoolal ni nga mel. jantal nga am nga fit ñeneen li ngay def car macha allah heure bi na laa fekk si beneen level mais level bu demee nan grand xam nga suma gàlle yee xam naa ko soo jaare naal takk ci pët le grand le suma yaakaar mu ñor rek fii la tëdd si bii dafa tàng yaay ci sàmm soxor saison laa jóge amul lu ma yàqu nee na nag du ma jox ñaw bi parce que dañ fa amee ñaw ma amee fa ñaw. yow yaa dama ko jox parce que yow triant yow sàmm sa xol si sa war na laa tëb yow ma sa ndey ba ma ca tolloo benn góor mësumaa tëb lu ma laaj góor mu jox ma ko xam nga lu ma la nga dem nga lijjanti ji yére bi loolu la gisee dama ci sàmm soxo nga defi say feem man ko ma ca tolloo ay demal nga dal leen dem ba foofu nga defi say feem lépp lu jël jële demal lijjanti ji ko yow moom yaay àdduna lépp lijjanti boo lijjanti wu sa ndaw bii may ma I big on the bed. salaamaaleykum salaamaaleykum kooku gratis ma la habitude maa ngi doon. grave. ça va. nice. ak jàmm. loolu ma ñëw. waaw dem ñëwaat. Naka mu. sant alhamdulilah. yaa ngi am jàmm. naka mu nag. waaye eh, nice grand. nañ si jàmm. sant. ma neex si yow damaa respecté rendez ku mel ni yow kon ñu respecté rendez-vous. pare na. grand pare naa bu yàgg. bu pare na. grand pare naa depuis. ba nga ma ne dinaa la taal ba nga pare. ok ok ay marchandise laa yor bu nga libéral ma ko li ma war a libéré am nga trois cent mille. trois cent mille ay franc ngay jaay. grave fra fra lam